asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu uh, imaam Omar Diène maa ngi lay nuyu imaam Babacar Ndiaye maa ngi lay nuyu di nuyu waa Agnos yëpp di nuyu tamit uh, imaam Moustapha Guèye maa ngi déglu léegi seen jotaay bi ngeen am ak président uh, président nag président Sénégal gépp la am ngeen ci sañ-sañ jokkoo ak moom waxtaan ak moom ci mbir moo xam ni rawatina moo wax ni moo leen ci woo. waaye dégg naa fa kàddu yoo xam ni jaaxal na ma lool ndax yéen waa ANOS signé ngeen pétition bi pour demander criminalisation kon peut-être da ngeen a wax ni kon dañ leen a nax kon wala da ngeen a bokk ci ñi ñu nax ndax dégg naa baatu tuuma ngeen yëkkati ni tuuma dafa jóg dañoo tuumaal euh, président man de waxtaan wi yëpp déglu naa ko waaye gisuma fenn fu président yëkkatee ay firnde jox leen teg ko ci seen loxo. te man de bi may ñëw di rencontrer waa Agnos euh, secrétaire général bi recevoir ma muy imam Omar Diène ma fekk fa mbooloo document laa yëkkati teg ci loxoom ay firnde li ñuy wax ñu lambatu ko te président moom xam na ni li ñuy wax lambatu ko yéen lañ nar a jël nag def leen ñayu xare yu ngeen di yu ñuy xeexal islam loolu nag man maa ngi leen di déglu ndax dégg naa ci seen biir wax ngeen wax ni. mbokk yi ko yëkkati yit da ngeen waxtaan ak ñun jotaay boobu rek lay xaar danañu jaral it ñu fay presque bépp ñu ñëw fekke ko ba xam yéen lan ngeen di teg suñuy loxo ñun li ñu wax lu simple la lu ñu wax lu simple la am na détail yoo xam nag ñun duñ ci dugg ndax amuñu jot ki te it sunu dayoo ëpp na loolu waaye li ñu wax mooy dafa am agenda international boo xam ne moom président sax reconnaître na ko ci biir waxam ngir jëm ci. nañ mbirum góor jigéen ngir bëgg maye góor ak góor ak jigéen ak jigéen bëgg lañ wax defaguñ ko senegal ak seegu fi loolu xam nañ ko maanaam góor a góor takkante fi jigéen ak jigéen takkante fi moom amagu fi waaye ci lañ jëm li ñu wax nag mooy article alinéa 3 boobu nekk ci article 319 bu code pénal bi acte contre nature wax nañ leen yéen ci boppam te kat wax dëgg yàlla bu ñu leen indilee xibaar war ngeen koo saytu ni ba ko koy def 66 booba acte contre nature mooy lépp lu safaanook li ñu xam rek kon góor jigéen mi ngi ci ci biir waaye ci 1990 la OMS Nations Unies ci banqaasam bu ñu wax OMS mooy organisation mondiale de la santé génne ngóor jigéen ci contre nature bokkatul ci li ñu xamul mu doon mbir moo xam ne kon léegi xam nañ ko comme niñ xamee yeneen mbir yépp mbir mu mbir mu normal la ci lañ ko retiré ci la nouvelle classification internationale des maladies te jox naa leen document bi yemul ci loolu bi ñu demee ba ci la 15 juin 2011 ci la Nations Unies jël nag ab loi boo xam ne moom lañu tuddee résolution boo xam ne la comité des droits de l'homme des Nations Unies moo ko jël pour nag jox leen ak ak yelleef ñu koy tox ay nouveaux droits yéen a ngi wax ci seeni biiri wax naan ci référendum bi loolu mënoon ngeen a bàyyi président waxal ko boppam. waaye yéen waru leen a xuus ci mbirum politique yéen yàlla rek ngeen fi war a nekkal waaye moom président dem leen ci constitution bi lu jëm ci àq ak yelleef yi jëm ci sénégalais yi te ñu am ko mën nga ñu liste ci article huit ba diggante article sept set huit article bi nag ci lañ liste àq ak yelleefu sénégalais yi ba tudd ci li ñuy wax un droit à un environnement sain dem leen ci article bu constitution bi nit looy wax danga ko war a xam ndax bàmmee la ngi ñëw te ñu ñi ñëpp kenn du ci mucc teg wa kulluhumu atihi yowmal xiyaamati farda environnement sain boobu président 2016 daf ko indiwaat te mi ngi ci bi kon bu ma ne damaa soxla imam Omar ba mu ñëw teew ba noppi ma ne imam Omar Diène laa soxlawaat man li ma bëgg a wax mooy lan kon un environnement sain daf ko dugalaat ci biir dispositif bi ñu doon indiwaat xanaa kon bokkul ak bi nekkoon ci biir constitution bi. bu indiwaatee ni ay nouveau droit quatrième point yu xanaa droit yooyu bokkut ak droit ya nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci constitution bi kon droit yu bees la mu lim ko ci article vingt cinq alinéa trois bi mu tudde ko ay droit d'autrui lii ma la wax nii Macky Sall moo ko def kon ñun jëf du teew ñu koy gam-gamle ak i wax président Macky Sall mënta waxati ñun lu ñu téye ndax dañoo gis mu jëf lu safaanoog loolu ma misaal leen ko nag ndax yéen yéen a ñu jàngal kon su ngeen ñu jàngalee ci li ngeen ñu jàngal wan ñu ko lañuy ñuy sukkandiku pour mën a am xam-xam nit bu jëlee ab surga te njaatige la njaboote ayu jigéen aw jigéen wax surgo ba ni ko sama jigéen ñi nag bu yegg ci ñoom sama kër gi dama fi tere njaaloo ñu dem dem dem ba yàgg mu fekk leen ci biir néeg ba fekk ko ci benn doomam bu jigéen mu ni ko lan laa la njaatige ko lan laa la waxoon waxoon naa la sama kër gi dama fiy tere njaaloo mu ni ko déedéet waaye jigéen ñi kenn du ci ëmb ñun li ñuy wax ak moom li muy wax bokkul moom moomul réew mi te it réew mi kenn tënk ko ci ak nekkam laata muy gane àdduna ak man mii laata may gane àdduna réew mi amoon na dan fiy jóge incha allahu rabbi bàyyi réew mi muy dox kon réew mi kenn mënu koo tënk ci nekkum nit ak kàdduy nit réew mi ay loi moo ko tënk te moom kàddoom du loi ba la mu cay wax ñu ne koy téye naan wax na ci nangam déedéet li muy wax kañ bu fekkente ni lu wér la te nawloo na askan wi nawloo na kilifa yi diine yi nga xam ne si nañ ko di vrai ay kilifa ñoom ñooña kon kañ li ko askan wi sàkku na ko def lan moo fi indi fi mu nekk nii jaaxleem gi mu jaaxle mbaa du daa jël avance boo xam ne mënu cee dellu ginnaaw yow saw njaboot ni ñun dañoo bëgg luwaa bii te ba mu demee ca àll ba ñooñu ne ko dañoo bëgg loi pour criminaliser vol de bétail da ko daal def amu ci woon ak jaaxle di woowu leen ci yéen ñi bi jigéen ñi jógee ni ko ñun dañoo bëgg loi pour criminaliser viol mais da koo def amu ci woon ak jaaxle léegi ñu ni nañ criminaliser góor jigéen rek moom mu daal di jaaxle fi mu nekk nii ni dañoo bëgg a yee fitna dañoo bëgg politique ma ne bu mu jaxase wax ji yéen nag jàppuma ma ni da ngeen nangoo doon ñayu xareem woo xam ni ci yéen lay jaar ngir ñu nasaxal lislaam daaneel raay bi lislaam maa ngi am kontante lool ci lenn nag ci lu ma dégg ci kàddu imam Moustapha Guèye mu wax ni lu yàlla bañ la kon képp ku gëm yàlla it danga koy bañ man de jàpp naa ni loolu mooy li war a ñun nag sunu dund kenn rek kay doon suñu kilifa muy yàlla moom dong lañu bàyyi xel yi tamit te xam na ni incha allahu rabbi léegi ñu dem ci biir bàmmeel kon réew mi ëpp na Senghor ëpp na du Diouf ëpp na ab Abdoulaye Wade ëpp na Macky sàll te yéen am ngeen cër yoo xam ne yàlla leen ko jox Macky Sall joxu leen ko bari na ci yéen ñoo xam ni ba ñuy nekk imam booba mi ngi jàng kon nag jàpp naa ne suy wax ak yéen ci mbir mii d'abord du yéen la ci waroon a waxal ndax bu dee kilifay diine yi du yéen kilifa kilifay diine réew mi xam na fi sëñ Babacar Sy Mansour nekk te sëñ Babacar Sy Mansour interpellé na leen ci directement gàmmu 2019 tontuwuñ ko sëñ Mountakha bërki démb wax na ci waxlu na ci kon bu bëggoon a wax ak moom day dem ci sëñ Muntaxa ni ñu yéen waa ànd sàmm jikko yi nañ daje ci kanamu sëñ Muntaxa wala nañ daje ci kanamu sëñ Babacar Sy Mansour wala nañ daje ci kanamu sëñ euh, Mouhamadou Mahi Niass wala sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Niass wala Cheikh Albekaay Albekaay wala sëñ Munir yu Njegeen wala sëñ Assane Seck bu Cenaba wala xalif général des Layènes wala kenn ci xalifa yi nañ fa daje RTS ñëw presse nationale international ñëw mu toog ñu génne suñu document mu wan ñu ne ñun li ñuy wax dañ koo tuumaal dañ ko sosal waaye yéen lay jël moom am na ay service am na service yoo xam ne ñoo ko nekkal mu leen di fay alal réew mi di leen fay am na ñu ko nekkal ci politique am ñu ko nekkal ci leneen ñooñu lan moo tax mënuñu ko defal plaidoyer kon li mu bëgg ci firnde ndax déglu nañu gis nag argument yi ñu génne nag nag na génne weddi ko te yóbbul ko kilifa diine yi waaye du ko def yéen la bëgg a jaare ci yéen néewal doole lislaam ji ngeen xam ni kon am ngeen ci responsabilité bu historique kaddu yi may wax nii tamit. lu may publier lay doon su ma noppee nii danaa ko def ci vidéo publier ko ñëpp jot ci ndax waxuñu ci lu ñuy xuumtoo liñ ci def lépp yàlla rek lañ ci jiital moom lañ ci bàyyi xel kon danaa ko publier tamit incha allahu rabbi waaye ngeen jàpp daal ni man maa ngi teewlu fi mu ne dañoo nekk ci tournée waaye maa ngi teewlu suba suba bu ngeen ñu woowoon man damay dëppaat wëlbatiku ndax seen jataay boobu yàkkamti naa ko lool ginnaaw yéen a war a leeralaat nit ñi ndax da jàpp ni dañoo tuumal dañuy manipuler nit ñi man maa ngi xaar ngeen woo ma pour wane manipulation bi fan la nekk ndax jàpp naa ne lu ngeen wax rek dëgg la war a doon jërë ngeen jëf wasalaam. Et nous, Association des imams et oulémas du Sénégal, vraiment, nous le soutenons, n'est-ce pas, surtout sur les futures gestions euh, électorales, euh, n'est-ce pas, euh, notamment la, euh, euh, les élections locales. Nous le soutenons vivement, n'est-ce pas, pour que, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une réussite parfaite, Inch'Allah. une bonne victoire. Oui, nous vraiment, nous, nous le soutenons. Nous le soutenons parce que c'est un travailleur, c'est un homme très engagé, n'est-ce pas Un nom vraiment euh, très calme, très discipliné, très disponible, comme je l'ai dit tantôt, qui a servi, qui a beaucoup servi l'État, n'est-ce pas Et qui a fait un travail remarquable à la tête, n'est-ce pas, du ministère de la Santé.